ñu def nii pour aar askan bi la évidemment xam ngeen ne ministère du commerce moom moo yor lépp loo xamante ne moom moo jëm ci protection consomateur donc dafa am dispositif boo xamante ne moom moo fi nekk moom mooy tax ministère bi mën na di contrôler qualité produit alimentaire loi 66 48 moom moo koy permettre di fàttali ni euh, bépp produit alimentaire balaa muy dugg Sénégal bu dee dañ ko nar a importer dañ koy déclarer ba noppi ñu jël quatre échantillons Euh, yóbbu ko ci ministère bi bu ñu jotee ak kat échantillon yooyu ñu daal di ko analyser bu fekkente ne produit bi baax na ci lay sog a mën a am autorisation bi ñu mën koo euh, dédouaner mu mën a dugg ci ci ci ci dëkk bi naa même bu fekkente ne da ngay fabriquer euh, produit fii ci Sénégal même dispositif bi am na ndax balaa dañuy ñëw xool place bi ngay bi nga koy liggéeyee prélever échantillon yi xool ndax méngoo na ak li nga xamante ne moom la yoon wax bu fekkente ne méngoo na ñu daal di la jox autorisation Fra nga mën a jaay sa sa produit donc di wax ni euh, li ñuy def nii am na solo ndax dina euh, dinañu euh, permettre ñu gën a aar askan bi di wax ni produit bi nga xamante ne moom lañ nekk di détruire toll na ci ñetti téeméeri tonnes ak ñaari fukk boo xoolee ci koppor mu ngi toll. ci téeméer million ak juróom benn fukk ak ñaar donc mu nekk loo xamante ne euh, xaalis bu takku la waaye li ci ëpp rek mooy euh, di sensibiliser waat ñi nga xamante ne ñoom ñooy indi produit yi ne nañu fexe rek euh, lépp luñ ciy def mu mun a méngoo ak législation ndax tamit métti na nga importer produit ba pare coono bi nga ci def def ci sa xaalis ba pare nga ñàkk ko ba pare ay sanction fekk la ci donc buñ ko gënee respecter rek day nekk li gën pour ñëpp daal